Pape de euh, président fédération des groupements des conducteurs et transporteurs de taxi de Touba en même temps aussi président association de lutte contre l'insécurité waa li tax euh, euh, li indi Pape de la route moy. bi nga RFM ubbi na département de Mbacké le 22 janvier 2010 ci lañ ma jël ma émission code de la route ma émission code de la route Seigne Fallou loolu itam fekk na ma gëstu woon ba xam lu bare bare ci code de la route waaye yàlla dogal itam émission boobu itam taxoon itam ma yokkoon samay gëstu di dem Dakar def ay formation ba yàlla dogal euh, ci secteur bi ma nekk xëy na ma euh, ci gën xam code de la route muy secteur transport waaye euh, li nga xam ne nii maanaam moomale naa ko sama bopp wala mu nekk lo xam ne nii jaral na ma lo xam ne jaralu ko ñu bari loolu moo Euh, ñu bari tudde ma Pape Seck code de la nga xam ne foo ma gis rek wala nga dégg ma rek daanaka ci affaire code de la route laay wax. waaw li ko sabab da xam mbiru droit de stationnement yi dafa dafa nekk loo xam ne lu ñu war a xoolaat la ndax nit ki bu fekkee ne dafay liggéey nga ne ko da ngaa war a fay dëgg la dafa war a fay mais ci biir fay boobu donc daf cee war a gis boppam ndax boo gisee tax yi tey ñoo ngi fay mille francs par mois. Wè, anan lò lèlèn koumèn djarim. Bo de mè ti kabyon vidanji, de ny fèy 25 mil par mwa. Mbake Toubaye de fèy 300 fran par zour. Tataye de fèy 6000 fran par mwa. Ote Irbèye de fèy 4600 fran par mwa. Menak litakman fòf wè, djaratakwò toudi, mweny kabyon vidanji be 25 mil, yò yon gèm dèf koumèn fèy. Men mwè fèkèdnò dèf wè pan, ti wè rwè, ba ci vingt-huitième jour bu mu daw du tere vingt cinq mille francs boobu lay fay te amul dara loo xam ne nii tey commune euh, gis euh, maanaam ñi nga xam ne ñoo yore camion vidange yi seetlu nañ ko ki seen dundin wala ki seen taxawaay loo xam ne nii commune bu Touba defal na leen ko ba loolu sa tax na ñoom amoon na ay ñaxtu yoo xam ne defoon nañ ko ci proposé woon ne li ñu bëgg mooy ku ci xëy fay 1000 francs soo xëyul bañ a fey ndax Mbàkke loolu lañ leen defal Mbàkke boo duggee da ngay fay dem fay ci fi nga xam ne mooy waa ONAS vidé bu fekkee ne nag xëyoo doo fay mais xëyoo ba pare di fay loolu metti la loo xam ne yàgg nañ koo jàmbat commune saa su ne commune ne buy def maanaam buy wati bisim dina ko xool mais ba fi ma waxee yow amul dara loo xam ne commune bi def na ko ci ci mbir moom mu nekk loo xam ne mën na ne maanaam maanaam xalu ndéef la ndax ña fa nekk mer nañ mer boo xam ne nii saa su ne rek mën na noo jug def loo xam ne nii mën naa indi ay perturbation ci li nga xam ne nii mooy dem bi bi ndax dafa metti boo jëlee tam ci ot yi aussi tata xam nga man euh, mus na ma benn secrétaire municipal mus na ma woon tarif yi nga xam ne nii mooy tarifu mairie ak oto mu xamuloo ne ma bu fekkee ne tata la quinze mille francs la war a fay par par par mois bu dee fay nag journalier six cent francs par jour tata yi Mbàkke quinze mille francs lañ fay fay par mois bu dee journalier six cent francs par par par par jour léegi nag Touba.

mais li ci gën a doy waar dañuy oto boo xam ne te xam naa ci ñëw après oto boo xam ne dafay fay ba pare ñu wëlbatiwaat na ko yow waroo daw ci dëkk bi te fekk fay na li nga xam ne nii mooy 4500 yooyu pour tënk rek li nga xam ne nii mooy mbiru droit de stationnement yi nga xam ne ñu ngi koy fay ñëpp pour ñëpp xam ne dañ koy fay même saret bi daf koy fay mais nag amul dara loo xam ne ne gis nañ ne commune bu tuubaa jël na ko warlul ko ñi nga xam ne nii ñoom ñooy fay te nit ki bu fekkee da nga nekk ak say nawlu ci dëkk ndax am na ñu nekk dëkk bi ñu bari ñoo xam ne dañoo war a fay commune bi te fayuñu dara mais transport moom ñi ngay fay mais kiy fay dafa war a gis njariñ ci ki muy fay ki nga xam ne tam du fay dafa am loo xam ne daf koo war a ñeewee kiy fay mais ñu dul fay ñun ñi nga xam ne ñooy waa secteur transport amul dara lu ñu kenn ñeewee ndax commune bi amul dara loo xam ne wax dëgg yàlla def nañ nekkul nag lu may wax pour euh, ni ko nit ñi gisee saa boo waxee ñu ne Abdou lay sànni xeer. dafa bañ Abdou Lahad Abdou Lahad sama xarit la sama mbokku taalibe la ñu bokk seen Abdou Lahad mais commune laa wax kon ay nit a fa nekk ñu bëree bëri ñoo xam ne lii may wax nañoo xam ne ñoom ña fa nekk ñëpp laa ko boole jot na ñu xoolaat li nga xam ne ni euh, mi ngi jógee ci transport bi di ñëw ci ñoom ñu xool ñoom it naka lañu war a def ba euh, ñu mën a taxaw secteur transport ba nga xam ne danañu gis seen bopp ci yëf yi ndax xoolal booy xool rek ci wàllu taxi yi gis nga ne euh, dinañ ci ñëw sax ci kanam parce que affaire organisation la. en tout cas foofu laa yem ci li nga xam ne nii mooy droit de station ñu ngi koy fay daal mais fayet bi am na lu ci mën a lu war a càmbar benn bi ci topp tamit ñun ñu koy fay vraiment gis ñu suñu bopp ci li nga xam ne nii moom la ñuy fay ci wàllu commune bi muy droit de stationnement yooyu. waa li tax mu tasaaroo mooy dañoo amul ay kilifa yu mat kilifa ci wàllu transport Sëñ Mbàkke yàlla njiit yàlla moo koy sàkk waaye bu la jiitalee ba noppi nag ci loo xam ne xëy na sa xam-xam ko. da ngay ut ñu ko seen xam-xam mate ñu nekk ci sa wet di la jàppale xam nga transport am lu ma naqarlu ci am donte du ma ko naqarloo ndax damaa xam ne Sëñ Tuubaa bis dina mu saafara lépp mooy am na ñoom dañoo jël transport moomale ko Idika Idika sama nijaay la sama mag sama xarit sama dëkkandoo la lang naa ci moom waaye nag moomul transport transport bi Sëñ Tuubaa moo ko moom. fii ku ne fi yaa moom nangam dañ lay jey fii lu fi nekk Sëñ Tuubaa ko moom moomale googu ñu ko moomale transport. commune bi itam jël ko jiital ko ci transport donte jiitawul commission moom moom la ab laaj ka jiital ci transport mais ni mi nga xam ne noonu la koy doxalee ci transport bi mais ku ne xam ne ne méngoowut ak ni ñu ko war a doxalee parce que dëgg benn rek yow bu fekkee da ngaa jiite li nga war a njëkk dem mooy war ngaa xam sa njaboot ñumu ñan la mais tey njaboot gi xamuñu leen benn bi topp bu ñuy wootee du ñu woo njaboot gi yëpp bu ñuy wax ñu wax njaboot gi yëpp bu ñuy séddalee duñu sédd njaboot mat juróom-benn nit rek lañ si recevoir oon bi ñu demee waxtaan ak premier ministre ci affaire transport Touba mu ne leen dinaa yebal benn commission technique et spéciale ñu waxtaane transport Touba pour état Sénégal mën tee jël ay matuwaayam commission boobu bi ñu ko yebalee ki ko jiitoon mooy Omar Thiam bi jiitoon centre contrôle technique léegi mooy conseil spécial ministre premier ministre ci domaine transport nekk primature ak Assane Mbaye conseil ministre bi ci wàllu politique mais jour bi ñëw ñii ma lay limal ñëpp ñu am ay kuréel boo fi jógee na nga leen laaj man damay wax àdduna di ma seetaan di ma dégg kon lu may wax dëgg rek lay doon Mour Habib Diop mooy président ade kabat camion benn yi ak manoeuvre yi mooy seen président kenn woowu ko Mour Mour Cheikh Mbacké Lo mooy président regroupement des transporteurs kenn woowu ko man maay président fédération des taximan yi muy gaz taxi nekkaat président association des jeunes chauffeurs kenn woowu ma

ne ko mboolem luy problème mu ñi nga xam ne jox ko ne ko mboolem problème li nga xam ne mooy problème mu secteur transport bu Touba mi ngi ci enveloppe boobu waxtaana noog ñi jiite ñëpp keneen ku ñëw ci yow ne la maa jiite nangam waxul dëgg yéen waa gouvernement am Sénégal maa ngi leen di wax ne loolu ñu leen wax du dëgg ñoom ñoo ñu ñoo wax lu lu dëgg ñii ma leen limal ñëpp bu leen neexee ngeen gëstu ko yëguñu tinuñu bokkuñu woon ca réunion ya kon ñoom loolu ñu wax moo li nga xam ne nii bu dëgg kon loolu na ngeen def attention baax dina leen xam ne tam Touba pëccëxoo nañ de waaye kuréel bu ci nekk am na kilifa camion yi am nañ kilifa Mbàkke Touba yi am kilifa taxi yi am kilifa camion benn am kilifa duñu nangu nag benn kuréel parce que ñoom dañoo am seen kuréel ñoom ñoom ñoo ñi nga ne dañoo xam ne ñoom moom transport Touba dañoo am seen benn association bo xamne raison jurbel bi yep la concerner ca lañu wax ba pare nak liñuy doxal ak liñuy def ci secteur transport bu mengout ak li war am kon nak na ngeen xamne ne yéen état bu Sénégal du nangu muk ngeen indi fi benn projet bo xamne ne dañ ci bedd ma sam wala ma demba tam war bok bokk mom duñ ko dong fi may terminer ci loolu rek seigne Mbacke pour gëna ñëwaat ci question moy ñun dañu am commune mu am maire muy Abdul Ahad Ka mu am commission des transports bo xamne musul am ci Touba juróom-benni conseil lañ jël ci secteur transport Idika Modou Mamoun Sankhé Khadim Gueye Cheikh Mbeng ci wàllu taxi maanaam jël Ousmane Sall bi dëkk fii Daaru Xudoos ak ki nga xam ne mooy El Hadji Thiam Sarr muy juróom-benn conseil mais commission boobu amulul njariñ benn njariñ secteur transport benn njariñ amulu ko secteur transport parce que bu fekkoon am na njariñ bi mu war a am def li mu war a def. kon secteur transport du mel nii mu war a mel ku jënd ku neex a jënd sa taxi ñëw taxi ku neex a jënd sa mbaake Tuubaa teg ci kaw tali bi ku neex nga jënd sa minicar ñëw di def transport urbain ku neex nga jënd sa saret ñëw takk dem di dem def transport kon ñàkk taxawu commune bi ak ñàkk taxawu commission des transports sax laay wax sax moom commune nag commission transport am na fa kon lu daal secteur transport kenn rek moo leen ko teg wala ñenn rek ñoo leen ko teg ñuy waa commission des transports bi nga xam ne moo nekk ci commune moo waral. Euh, sexu trans mënu organiser jërëjëf sëñ Mbacke laaj nga ma laaj boo xam ne laaj bu am solo la bu am solo boo xam ne sant naa ci yàlla bu baax euh, tali yi fii ci sëñ Mbacke fii ci tuubaa ay jalgati yu bëree bëri moo ci am dama koy wax ca kaw te du ko nëbb du ko làq entreprise yi nga xam ne ñooy defar tali yi am nañ ay avocat organisé wu nañ tribunal bu leen neex nañ ma fa woo man dinaa taxaw leeral li may leerte bala may taxaw ci benn tribunal dinaa leen ko leeral yéen ñi nga xam ne yéen site internet yi bu leen neexee ngeen jël seen caméra dem sur la route di gis li nga xam ne moom laa la moom laa leen di wax. ci wàllu jalgati bi ci njëkk booy xool tey tali bi nga xam ne moo jógee ci rond point bi poste contrôle ñëw ci jumaa ji ni ñu ko defaree ku xam tali xam ne niñ ko defaree baaxul baaxul benn mooy amul ay rond benn rond rek lañ def fi nga xam ne nii mooy wetu ko sëñ Moxtala

ñëw ba kër sëñ Modou Bousso ma war a jaar defaluñu ma flèche directionnelle li ñuy wax mais tey booy xool voie boobu amul benn flèche pour jàdd amul panneau de signalisation bu lay wax ne danga war a jàdd nga seetlu ne même oto yi dañuy def ay demi sur la route yoo xam ne du luñ bëgg mais tali bi ni ñu ko defaree moo baaxul imposé leen ko te mu nekk loo xam ne loraange la ci kii dawal ndax li mu nekk loraange mooy da ngay fay sa assurance ba pare te bu fekkee ne am nga ci cas d' accident assurance du la la route. soo xoolee ci wàllu passage piéton yi ñu war a defal nii jéggi demal Massa Xayra Massa Xayra doo fa gis passage pour piéton benn passage pour piéton la ñuy def booy xool ca wetu tableau 40 am na benn passage pour piéton wetu kër Maam Thierno amul passage pour piéton te chaque passage su oto waroon na am passage piéton ci côté bi ba nga xam ne kiy jéggi dafay mën a jaar booy xool handicapé yi te booy rese pousse pousse boo war a traversé tali bi fan nga koy traversé fi ko oto yi di te loolu nekk loo xam ne ni jaaduwul. foofu mën naa tee yem bu ma doon wax rek ndëngte yi nekk ci tali boobu bari na mais booy xool tey ci fi nga xam ne nii mooy wetu sëñ Mudu euh, Muduloo Ngaabu tali bi nga xam ne moo jugee marché Ocass traversé ko si Muduloo Ngaabu jëm Daaru Minam booy xool terre prince central bi ndef ci diggante bi tey du yoon nañu ko defaree ndax boo jugee marché Ocass pour nga dem tout droit ci tali Daaru euh, Minam bi da nga def benn contournement contournement boobu ku na xam ne du yoon. dañoo war a dagg li nga xam ne nii mooy miir bi nga xam ne moo sépare ñaari tali ba nga xam ne yow da ngay jàkkaarloog sa voie direct mën a traversé dem sa yoon loolu gis nañ ne booy xool amu ci li nga xam ne nii mooy foofu bu ñëwee ba tey ci wàllu jalgati wàllu tali ak ñàkk xam dara booy xool buntu ko Sëñ tubaab bi nekk ci fi nga xam ne nii mooy résidence bi am na lu ñuy wax ligne zebra ligne zebra ci code routier de la route dañ ne bul ci taxaw bul ci jaar bul ci gaare ñu ñëw def ko ci buntu résidence bi nga xam ne même xalif général des Mourides eh, yàlla na ko suñu borom dolli leer sëñ Sidi Moxtaar doon naa ko wax bu jugee guy mbind pour dugg ci résidence bi day franchir li nga xam ne nii mooy ligne zebra bi loolu nekk loo xam ne ku ne xam ne nekk kenn tegu ko ci xam-xam boo demee aussi ci ligne esto bi ci wetu groupe bi ci jumaa ji wetu ko sëñ Ndaam Atta ak sëñ Saaliw ak fi nga xam ne mooy diggante ko sëñ ab Abdulaat ak sëriñ sëriñ Fàllu ligne stop bi dañ ko def koñ carré ligne stop warul nekk koñ carré boo demee ci code Rousseau ñetti euh, ñetti ligne moo ci nekk ligne stop ligne cédé la passage ak ligne d'effet de feu amul benn ligne boo xam ne dafa nekk koñ carré loolu seetlu nañ ko yàgg na wax nañ ko kilifa yi mais ba tey gis nañ ne amul benn saafara beneen bi topp mooy boo xool tey ci wàllu signalisation vertical muy tableau yi amul te ku ne xam ne Touba Carrefour la tey boo jugee dakaar war a traversé Touba dem dem maatam wala nga dem Linguère wala Daara Jolof mais ban panneau nga gis ci intersection yi wala rond point yi mu lay gindi fii moo jëm place tel fii moo jëm place tel amul loolu jalgati mu mënu ko wees ci doodaan yi doodaan boo ko defaree da nga ko war a def doodaan type ralentisseur parce que panneau bi ñuy présenté doodaan type ralentisseur la mais doodaan yi ñuy def du doodaan yoo xam ne yu réglementé la ñu ne ko nongu nongoral ci kaw tali bi du am panneau bi nga xam ne mooy présignalisation bi du am aussi position bi ndax présignalisation mooy panneau bi nga xam ne triangle lay nekk intervalle am ak doodaan bu fekkee biir dëkk la cinquante cent cinquante mètres position bi ni nekk panneau bu bula carré nekk ci kaw doodaan bi mais bu ngeen seetloo yéen doodaan yu bari fii Touba amul benn panneau signalisation yow sëñ Mbàkke nga war a mën a dawal sa oto dal ci doodaan bi sa carter toj kat moo lay fay ñaata ñoo yàqule ci Touba ñoo xam ne nii dañoo yàqule ay ay ay ay ci seen ay oto ci doodaan yi te kenn fayu leen ma leen interpellé ñoom ñooñu nañu taxaw képp koo xam ne sa oto mës nga ko dawal fii ci dëkk bi ba mu dal ci ab doodaan yàqu ci kaw amul benn signalisation am nga droit ci porter plainte entreprise bi nga xam ne moo doon defar tali bi pour mu fay la li nga xam ne nii moom nga yàqule loolu nekkaat beneen jalgati boo xam ne ñu ngi koy gis ci tali bi fi ma ci jeexale mooy tali bu bees bi nga xam ne ñoo ngi koy defar mu jugee fi nga xam ne mooy ndindi deux voies yi war a wër ñëw konis euh, daara ñëw rond point poste ci li ma gëstu li ma xam mooy par tali bi foofu lay yem parce que tali bi tam li tax ñu defar ko il faut ñu leeral leen ko autoroute Ila Touba 113 kilomètres de route la entre Thiès ak Touba ñi nga xam ne dañuy traversé dëkk bi jëm Fuuta wala Jolof léegi ñoom la ñuy faciliter seen traversé dëkk bi pour dem fi nga xam ne nii mooy Fuuta wala Jolof mais ak lu man di xew ma jàpp ne ñun ay waa Touba lañ Touba lañ am fi lañ dëkk te dañuy dox suñu soxla bala ñoo xalaat ki jëm Fuuta yom jaaram ci dëkk bi di yomb nañ xalaat ki dëkk ci dëkk bi ab demam ak dikkam mëna yomb mais nima gisé étude bi niñ ko défaré man lima gis moy bu féké tali bi défa nañ ko bam pare ñun waa Touba ñu bayé ay coono ak ay tolof tolof yo xamné yu bari la tey mën naa causer ay accident yu bari bu féké defu ñu ay passage piéton ak ay passage yo xamné auto dañ ci jàll ak li nga xamné mo ay doo daan te lool lépp liñ défa rugul sélu nañ ne lool amu ci. kon nak ñi wax ak kilifa yi ne len tali bi niñ ko defere ñi nga xam yàlla may nañu tuuti xam-xam ci walu defarum talib tali bi li ñu gisagul ci tali bi baaxul ci ñi nga xam wa wa Touba lañ xëy ci ñi mu baax rek moy ñi nga xam ne dañuy traverser di dem te ñoñu sax mën nañ ne xëy na ba mën leena jural leneen lo xam ne loraange kon na sëñ Mbàkke pour ma teunk rek Touba mom bari na benen fi may jeexale ba ma koy fàtte ci signalisation horizontale yi ba tey lii may wax kum neex na nga dem xol ko bu ngeen demee ci wetu kër euh, sëriñ euh, Mahmadan moom sëñ Abdoulaat ke sëñ Sidi gi foofu am na benn ligne stop bu ñu fa def ligne stop bi 10 centimètres ligne stop 50 centimètres de large la war a doon loolu jalgati la beneen bi tam ci yoonu allié bi ligne de rive bi mooy rëdd bi nga xam ne ko war def ci côté tali bi bu fekkee ne route à double sens la dafa war a nekk 3 mètres intervalle 3 mètres 50 mais bu nga gisee route boobu dañ ko def continuer même tali Iba Gueye bi ñoo tali Iba Gueye la même chose dañoo def ligne conti ligne de ba ligne continue te loolu li muy teg tekkale mooy tali bii kat benn sens la sens unique dem kese la wala ñëw kese mais amul dem amul dikk kon nag loolu itam nekk na loo xam ne jalgate la boo xam ne bu rëy la ci ñaari rond yi rek ma terminer foofu ñaari rond point muy rond point bi nekk buntu ga gare routière bu bees bi ak héliport amul li nga xamne moy signalisation yu bax moy contournement obligatoire loolu taxna ay accident yu bari amna ci rond point yoy te accident yoy fa am kan moko causer moy entreprise bi nga xamne ne mo defal defar tali bi kon seigne mbake mom ci walu jalgati mom ci tali fii ci Touba bu ma ko doon wax du jeex dolli ci rek xana garu teer bi garu teer bi tay boy xol defal nañ ko mais amul canalisation tay bo fa demé demet yow yor sa dal yo xamne day bañ ndox pour nga dugg fu auto day day jafe te loolu du yone parce que day xagn garu teer bi ay client loo yooyu tamit yépp ci wàllu defarnu talibeeg yooyu dem beeg dikk bi ay jalgati daal lañ ci gis yu baree bari yoo xam ne mi ngi créé accident mi ngi lor askan wi mi ngi leen di yàqal ci loo xam ne nii du dëgg du yoon. nga association yi yëngatu fii tam ci wàllu Touba ci coow yi euh, booy xool sa association yi am nañu coow mais coow li gën a fës mooy ci li ñuy wax regroupement des chauffeurs ndax dañ koy doxalee noo xam ne. man maa ngi interpellé état ak ñi nga xam ne ñëpp dañuy xeex ak ak yelleef doomu aadama ñu taxaw ci li nga xam ne mooy xew ci gare routière yi nga xam moo nekk Touba ak ci yenn regroupement chauffeur yi ndax ku ne xam ne ne xel mënul nangu sëñ Mbacke ñu ne Pape Seck mooy président gare sàngam muy gérer ay centaine de millions par trois ans yi nga xam ne moom lañ ko dénk gare routière bi bu ñëwee ba assemblée général bu defee bu defee bilam presque quatre-vingt-douze millions yi wala quatre-vingt-dix-sept millions yëpp dañ ñuy wax ne dugal nañ ko ci ay frais mais frais yooyu kenn du ko justifié te gaaru ceer bi duñ ci faj nit ku feebar duñ ci taba gisuñu leneen luñ ci def loo xam ne daanaka mën nañ ne lii lu lu wér peng la loo xam ne lu nit mën a teg bëtam la ma jàpp ne xaasu mbooloo boo ko yoree dërëm boo ci fere war ngaa dërëm bi ci nangam laa ko dugal ñaar dërëm bi ci nangam laa ko dugal mais fere naa un am nañ un million cinq cent janvier fere nañ un million yi mais un million ci nan nga ko fere amul te lii ma leen di wax bu la neexee ngeen dem gëstu ko regroupement yu bari fii ci Touba tey bu fekkee ne def nañ seen ensemble général xaalis bi ñu liggéey la ci ëpp ñetti xaaj ñetti xaaj yi dañuy wax ne dugg na ci ay fere te duñ ko justifié loolu nag man dama ne ak càcc la te nag ñi nga xam ne ñoo koy def bu fekkee dañoo bëgg a weddi man li ma wax ne ak càcc la nañ indi ay firnde wax ne fii ak fii lañ ko dugal kon loolu lu la loo xam ne tam euh, ñi ngi wax daal état na ci dugal loxoom ndax bu ko deful ëllëg mën naa jur ay mbir yu mag a mag yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñaanuñu ko yàlla. pam nga sax foofu ci début bi dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo seq tataay seen kilifa wax ne tataay seen yoon nekku ci mais nag ci li dégg man mooy xale yi bi ñu leen taxawalee njaareem ci alxames bii paase mu ñaar fukki xale ñaar wala leen àtte am na ci turi turu kilifa gun woo nga xam ne moom absence am moo tax ñu renouveler ñu renvoyé àtte bi ñu waroon àtte xale yi ci alxames bii paase. comme que nag ñoom duñ ca dara traay du ci dara kon lan moo tax ñu leen cay tudd loolu benn la xëy na mën naa nekk yàq bi nga xam ne yàq nañ ko ci benn tata muy 16 44 vitre arrière am euh, pare bi am. mais liste boobu dafa am lu ko sabab loo xam sëñ Mbàkke man maa ko dund fekk ko xam ko di la ko wax ku ko weddi na la wax leneen lu bokkut ak lii te mu te muy lu wér xam nga boo seetloo kooru daaw jéeg amoon na problème entre oto yi ñuy wax muusi ak tataay muy oto yi doon taxaw ci bundu kër sëñ Modou Fada xarit doon dem forage bi ci yoon Daaru Musi ak beneen ligne bu départ foofu di dem Aliya bi ñu demee ba créé troisième ligne bi muy dem Daaru Tanzil di ànd ak ligne 2 bi ci la problème commencé di am tata yi sëfóor yi di dàqee ak ñi nga xam ne nii mooy oto yu ndaw yooyu ak di defanteeg ñoom yoo xam ne mën nañ ne daanaka xeexalante ay oto la bi loolu amee nag ci la sous-préfet def benn arrêté ne oto yi nga xam ne ñooy guwaanaay ñu leen di wax muus buñ demati ci yoon yi nga xam ne ci la tata yi di jaar buñ demati itam ci fi nga xam ne mooy terminus su tata yi arrêté boobu commandant bi fi nekkoon muy commandant ba bi mu ñëwee jëfandikoowul li nga xam ne mooy li arrêté bi wax parce que dañoo ñëw tas garage urbain yi man Dakar la ma fekk bi ma ñëwee ma dem garage su Madiane bi nga xam ne mooy ndeyu garage urbain yëpp nekk marché Ocass man mii wax yow lang naa fa ca Madiane juróomi Baye Talla Samb moo ko jiite. bi ma demee jour ba maa ngi leen fekk ñuy réunion naka lañ mën a def ba séddoo ñoom seen xaalis ma ñëw waxtaan ak ñoom euh, dalal leen. ne leen ndax mën na maa am arrêté bi ngeen wax ne moom la sous préfet bàyyi taal moo ko génne ci copier jox ma ma liir ko préfet lii ma lay wax moom la ci def bi loolu amee man la leen waa man li ma gis ci kayit bi ak li am sur le terrain bokkul man gisuma ci tas ay gaaras te lii de man wóor na ma péng ne du ndigalu sëñ Sidi Moxtaar ñu ne ma ah man leen dañ leen sëñ si bee tas lu gaaras yi man leen man man Pape Seck code de la route maa ne sëñ Sidi Moxtaar tasuwul yi te fu ngeen dem yóbbu leen ko man nëbbatuwuma te lii danaa ci jug danaa ci dox te dana saafaraw ñu ne ma ah ñenn ñi ne ah kon de yow nga dimbali ñu léegi bi loolu amee ci laa woote benn réunion kër sonn maamu sa Tamba bi nga xam ne falaa yendu lu bari mu sëñ Fallou maa ngi koy ziar woo fa garage urbain yëpp ci weeru koor googu ñu réunion fa réunion bu mag boo xam ne seriñ Maam Moor moom sëñ Bass moom sëñ Fallou di conseil ci commune bi fekke ne ko muy réunion boo xam ne keroog dafa ndeysaan am na sax fa wax ba am nit ñu daanu jël di jooy ndax nit ki bu fekkee ne. dafa bàyyi ay cosaanam bàyyi dëkki maamam bàyyi suuf yam doon baye suuf yam doon sàmmee lépp jaay materiel ba mu mën a jaay bépp bi mën a ñëw mu indi ko Touba ñëw dëkk seeg sëñ Touba ngir mu yor ko te mu wóor ne bi mu ñëwee Touba sëñ Touba mën na koo yor kon bu gisee ñu teg ko na joo xam ne lu koy toroxal la lu koy delloo ginnaaw la ba pare ña ko def ne sëñ Sidi Moutaara ko deflu loolu dafa dafa metti ndax moom ginnaaw nee nañ sëñ bee ko def rek moom amatul pexe te lii rek la am pour dund bi loolu amee ci daal ak ñoom. deuxième réunion ñu dem ci suis Cheikh Bass mu Khadir. Bima bi waxtaan ak mom, biñ ñu ak de dina ci waxtaan ak bi lépp lu ci tuké dina ma waat yenn responsable ci ci gis sous-préfet nak da di créer commission ci sous-préfecture commission ba ñi ñoko sous-préfet ma nga ca président commission des transports ci commune Touba ma nga président regroupement des chauffeurs de opérateur Tata ma nga ca Xaarim Gueye opérateur Tata di président regroupement gaarute Daaru Musi di conseil à commune aussi ma nga ca bokk ci commission transport ak Mourou Mamoun Sankhé bu gaar daar Jolof moom tam aussi opérateur la président gaaru teer la ba pare tam conseil la à commune commission transport ci la bokk mu ñetti conseil yoo xam ne ci commune leen bokk ak ki nga xam ne mooy Ibrahima saw nekkoon gérant ligne 1 Pape Kitane nekkoon gérant ligne 6 man nii laa doon gis tout le mercredi ak Pambay président fédération euh, euh, euh, garage urbain yi tous les mercredis ñuy réunion ci commune pour xool naka lañu mën a def ba situation bi ñu régler ko bi loolu amee ci lañ proposé ne ku yor ku yor oto photocopier sa carte grise nga indi ko ci sous préfecture bi wala nga jox ko Pambay wala Galas Jaw bu allié ñu xool oto yi nag oto yi am na ci yoo xam ne seen i kayit baaxul bi ñu ko defee càmbar càmbar ay fan maamu ju sax ànd ak gars yi ñu def pression ci kaw sous préfet ko. da ngay afficher liste bi da da ngay da ngay joxe li nga xam ne nii mooy kayitu jàmbur yi ndax am na oto yoo xam ne même am nañ licence su transport interurbain ñu joxoon leen benn kayit boo xam ne bi ñu leen ko jox dama leen kayit bi Touba képp ngeen ci mën a daw waaye ku ko ci yor boo génnee fii yoon dalay teg ndax kayit bii code de la route reconnaître ko am na ci ñu ko essayé génn mais ñu jàpp leen bi loolu amee nag affaire bi metti gars yi ne ñun comme que suñu oto am na licence interurbain bu ñu teree daw ci dëkk bi dañu bàyyi ñu dem léegi man dem sous-préfet nekkul nag léegi carte grise yi damaa bëggoon nga delloo ko seen ay borom parce que dañoo war a liggéey sa carte grise boo ko téyee mais borom dootul mën a liggéey léegi loolu amee nag ci lañ xalaat ñoom ca lañ tënk ñoom xaw ma lu ñu tënk fekk wu ma ko mais lañu la ñu def man laa xam ne lii ñu tënk mooy def benn lis ne 150 oto ñooy daw léegi nag liste boobu bi ñu ko defee am na ci oto yoo xam ne. transport waaw xam nga lool sëñ Mbacke dëgg bu wér nga wax te xam nga fi ci gën a garaaw mooy li ci gën a garaaw mooy sëñ bi ñu defee lool ba ba ba mbelli oto yi nga xam ne amuñu kayit man dama ne man Pape Seck ci site internet laa nekk boo xam ne ñëpp xam nañ ko man musuma dawal oto rim muy oto bu amul kayit duma ko jaay duma ko jëndal nit. du ma booleeg nit sëfoor nga di ko dawaloo oto bu amul kayit d'abord rim nag dafa am ñoo xam ne dañuy dañ dañ koy wax te te duñ duñ ko leeral dafa mat a leeral rim mooy république islamique Mauritanie RIM tey yàq nañ ko ba nga xam ne sëñ Mbàkke yow tey soo amoon sa ganu mauritanien mu yor otoom fii ci biir dëkk bi borom sareeti mbaam xale da naan boo ko xoosee du mujj fee ndax rim la mais attention rim la mais oto bu baax la am nay kayit parce que bu ñëw réew mi ay ay kayit ko fi dugal kon rim tekku lool moom mën nañ ne oto bu amuti kayit rek ndax oto bu amuti kayit ñoom amul fenn fu ñu ko mën a lu ñu ko mën a tudde askane beneen bi topp sëñ Mbàkke oto yi nga xam ne am nañ kayit mais dañ leen a tere ne du ngeen daw ndax bokkoo leen ci liste bi sëñ Mbàkke ndax taxi yi am na liss tey tey bu la neexee boo wàccee fii gënd sa waxuma la gën sa oto sa particulier nga jënd benn Vendôme 2000 teg ko ci kaw dem taxi lan moo tax waxuñu ci loolu Mbàkke yi ndax am nañ liste lu tax waxuñu ci loolu Mbàkke Tuubaa yi ndax am na licence transport amuñu ko oto Renault yi amuñu licence transport fii sëñ Tuubaa mooy borom te moo ñu fi dajale amul ay industrie amul géej amul dara ay néew ji doole fi nekk faaw sëñ Tuubaa mi leen fi dajale fàggul leen leen yóbbu ci dem ak dikk moo tax Mbàkke Tuubaa di fi daw di am jàmm taxi bi di fi daw di am jàmm Mérica bi di fi daw di am jàmm li leen ko teg nag benn mbir dong mooy tataay man maa ko wax te tataay mus naa koo wax dinaa ko waxaat. tata yi ñu ci baree bari seeni boroom dëkkuñu ci dëkk bi dëkkuñu ci dëkk bi de man Pape sekk ñëpp xam nañ ne ma ci transport tataay bi ñu koy indee dañ maa beddi sànni ci àll ba maak samay moroom yu baree bare bari ndax nag ñun ñu ñu bedd ñun sànni ci àll te ñu bokk ci transport dëkk Touba te war a dundal suñu njaboot ndax dañuy croiser suñuy bras rek duñ uti leneen lu ñu dund sëñ Mbàkke déedéet dañuy def yeneen pexe pour dund tataay yu ci bari seeni borom dëkkuñu ci dëkk bi ni ñu làqatoo nag dinaa ko leeral mu leer par exemple yow sëñ Mbacke da ngay dëkk ca dakaar man ma am sama GIE fii ci tuubaa te doo ko GIE Ndangam bu ma neex ma tudd GIE Daaru Xudóos par exemple dëkk fii Daaru Xudóos wala GIE Daaru Minam nga ñëw bokk ci sama GIE làqu ci sama ginnaaw pour am tata man maa ko wax li may wax man nëbbu ma ko làqu ma ko damay wax ak loo xam ci àdduna bi yëpp koy gis tataay yu ci bari seeni borom dëkkuñu tuubaa mais GIE yi alkagre Touba dëkk beneen bi topp tataay dañ ne Touba ko moom du dëgg. projet bi Touba moomu ko projet bi région Diourbel moo ko moom boo dëkkee Bambey am nga droit am ci oto yi donte sax yow am majjoos nga wala yéefar nga boo dëkkee Diourbel am nga droit am ci kon buñ ne projet bi projet bi suñ Touba moo ko moom li ko li ko li ko doon mbirum leen képp la bi nga xamee ne am nañ xalaat bi ba dajaloo dem ci sëriñ Alaaji baar te foofu lañ mbir mi sababoo sëñ Alaaji baar ñu daje fa ak doom ju ñuy wax sëriñ Alaaji Fàllu Mbàkke mi nga xam mooy PDG Crest Global SA la sëñ alaaj baa ne kii de galas la sama doom la mën naa leen a moom comme que nag gars yi amuñu woon organisation bu mën a indi Tata amuñu doole ji amuñu xam-xam ji galas am na doole ji am na ay ñu ko dar ñu am xam-xam bi am na xaalis pour mën a indi oto yi ci loolu ci lañ jëlee oto yi état bu Sénégal teg ko ci loxol Serigne Galas ci société bu ñuy wax Crest Global SA comme que nag yàlla dogal na niñ ko procédure bi niñ ko tënkee woon méngoo wuute ni nga xam ne noonu la ko waa Touba bëggee attan nañ ko ci lañ demee ne ba ne léegi fu waay mën di dëkk rek mën ngaa am ci oto am na sama baay boo xam ne yàlla na ko yàlla yokku fanu gudd ak wér baay Ibrahima Diouf ñu bari xam nañ ko ancien transporteur de oto yi nga doon gis idée yëpp super yi vert vert yi yëpp moom moo ko moomoon Dakar moom amoon na ci ñeenti oto mais xëy na am ay yu muy subtana ci ci ci ci li nga xam ne mooy procédure bi moo taxoon récupéré waat xaala xaalisam ñaari otoom baara sekk la la la la la ko mujj jox bu fekkee ne nag oto yoo xam ne nii seeni borom dëkkuñu ci dëkk bi personnel bi ci ëpp dëkkuñu ci dëkk bi ñu bëgg koo jënde ak oto yoo xam ne ay taalibe seen tuwaaku moom ci dëkk bi lañ dëkk loolu man d'accorduma ci d'accord naa na nañu daw ndax dañoo war a dëkk ndax baax nañ ci dëkk bi waaye nag nañu daw fi ñu war a daw yeneen oto itam ñu bàyyi leen ñu daw fi ñu war a daw parce nekk amal nga njariñ population waaw li may tàggatoo li ci njëkk mooy sant yàlla bu baax moom mi ma bind boole ma ci secteur transport santaat ko ci def gi ma def may murit santaat ko ci def gi ma def may taalibi sëñ ab laat te yàlla dogal ma tarbiyewu sëñ Abdou Lahat yàlla dimbali ma ba li ma nekk doon nekk ne xale foto yaa ngi mën naa benn foto maa ngi foroon ko sëñ man yàlla dimbali woon na ma nekkoon xale bu tuuti reer bi nga xam ne sëñ Saaliw daf ko daan toggal sëñ ab Lahat xam nga tibbal reer ak toggal reer bokkul sëñ Saaliw daan toggal reer sëñ Abdou man am naa diir bu yàgg boo ne maa ko jëlee ci biir laa di ko teg ci loxo Sëñ Saalu nekkoon xale bu tuut loolu maa ngi ciy sant yàlla jaar naa ci daal di tarbiya fa laa jàng li ma xam ko si néew ci français euh, santaal leen yéen aussi yéen ñi nga xam ne yéen a ma dalal muy loo xam ne mosuma ko def man mosuma toog ci benn site internet waxtaan waxtaan wi ma waxtaan mosuma ko def kon yéen ñi ma may occasion yi ma def ko te lépp it ma def ko rek ngir liggéey Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa képp tax ma di ko def kon daa vraiment maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax tam wax ji képp koo xam ne naqari na la nga jéggal ma ko képp ku mu neex tam nga sant ci yàlla xam ne it amuma ci dara lu may réccu ndax dama koy def ngir yàlla ak sëriñ bi ak sama réew ngir mu jëm kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu